quand est-ce que l'assainissement des villes que je vais vous citer, la ville de Touba, de Louga, de Djourbel, de Kaulak, de Saint-Louis et la banlieue de Dakar. Monsieur le ministre, quelles mesures vous allez entreprendre pour mettre fin à la pénurie d'eau dans la région de Dakar Les femmes surveillent les robinets comme du lait sur le feu et dormir à 3 heures du matin. Et toujours les factures restent très chères. Monsieur le ministre, et les factures restent trop chères. Quand est-ce que la fermeture des canaux à sel ouvert, Rufisque et Blaise Monsieur le ministre, l'eau de Touba est salée. bu ñu fay togg sax jarul a xorom ndax boo xoromee mu ëpp kañ lañ koy vous ba mu tegu ci yoon bañ que vous naan te it ñu di góorgóorlu màggal lañ am pour ndox doy. monsieur le ministre ma wax ne dañoo jàngoon ñu ne l'eau est inodore l'eau est incolore inodore et sans saveur mais dañu seetlu période élection ci la ndox mi xawal a lu wañi affaire bi touti saf sapal bi monsieur le ministre monsieur Mangara waaw saf safal après gars wote duñ ko tay seen monsieur Mangara ñu lay parce que le comportement du ministre de la culture d'hier tegul fenn respect réciproque nit ki respect koy respecter mu respecté la mais un ministre de la république qui se prend comme un boy kaboy fab say loxo dugal ci sa poste di xas nit ni, c'est pas normal ñun devons wara am un un comportement responsable mais ministre tam dañoo wara respecter le ministre est élu par nommé par décret nous sommes élus pour 5 ans comme le président Macky Sall ma wax ni brassard rouge jeex na ben benn la

te boo watul mu ngoy koy gerte te boo watul moo koy daane nit ki dang koy wax deug mu meuna xam ay décision xam fu muy jaar ba fajj soxla askan wi way yaay yalla yaay yonent bi yaay ray yaay dekkal koku ça n'avance pas un gouvernement ça n'avance pas un pays ceux qui ont gagné n'ont qu'à gouverner nous les opposants on s'oppose loolu moy la vérité waaye ya baax té dara du ci dëgg ci ñom bari na ci ño xamné ne li ñuy wax ci ko ak li ñuy wax ci suuf du benn dafa am ñu officiel am ñu officiel kon ma ngi lay gërëm di la sant bonne continuation